souhaité, mais bon, ça ne s'est pas fait. Mhm. Mais si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas. Il mhm. faudra juste que la personne paye sa place pour le stand, quoi, mhm. uniquement. après ça, ça discuté, quoi. D'accord. Alors, pourquoi tant d'amour pour le Sénégal c'est-à-dire on se rend compte que euh, à Paris par exemple euh, il y a beaucoup de euh, personnes qui vivent ici qui sont originaires du bled comme vous dites euh, qui se soucient vraiment de ce qui se passe au pays qui se soucient euh, du Sénégal vous tentez toujours de faire des choses qui vraiment aider vos parents sénégalais qui sont là-bas pourquoi ce ce cet amour pour le Sénégal? le Sénégal je l'ai découvert très tard J'ai pas eu la chance. Je l'ai découvert en 2016. Mmh. Parce que ma mère, elle nous a tous ramenés euh, en vacances. Mmh. Et bah, depuis ce jour-là, bah, je suis tombée amoureuse, j'ai kiffé. Mhm.

vraiment vous proposer des choses assez intéressantes euh, yu leen mën a soxal yéen téléspectateurs wala. waaye tubaab nee na la répétition est pédagogique wolof teg ci ne. Euh, wax waxaat du bëri wax alors bu dee da ngeen bëgg a jënd euh, pay view bi nga xamante ni ñoo ngi koy jaayee 5000 francs kese maanaam ak 5000 francs day mel ni am nga visa jënd nga billet d'avion fay nga hôtel fay nga sa transport fay nga li ngay lekk ñëw fii ci France dem seetaan li nga xamante ni mooy Bercy attendez je je change de micro African Come Music l'Africaine bëri ngeen ci di ma laaj naka ngeen mën a def euh, pour jënd euh, pass bi ci application euh, Wido bi c'est très simple da ngeen di dem ci www point wido point tv alors ci site plateforme bi foofu ngeen mën a jëndee pay per bi pour mën a seetaan Bercy 2022 donc je répète télécharger leen application bi ça c'est en fait waaye bi ci topp da di dem ci 3w point wido point TV bu ko defee ngeen jënd euh, pay bi euh, pour vous permettre euh, de regarder li nga xamante ni mooy Bercy 2022 ak Youssou Ndour rek Super Étoile ce sera pour ce samedi alors Maguette je t'embrasse très fort la parisienne elle est aussi en train de nous regarder je rappelle que nous sommes en direct sur les pour le grand journal du Bal le 18 la ñu koy amal fii ci Paris capitale bu France fan yëpp maa ngi koy wax au-delà du spectacle côté économie gis ngeen li Bercy bi di jural France gi ci wàllu transport euh, ci wàllu hôtel euh, ci wàllu lekk yooyu yëpp dafa am solo ñu koy euh, préciser waaye ñoom loolu lañ ci am ñoom waa France ñun nag Sénégal li ñu ciy am mooy gën a jaay euh, drapeau bu Sénégal bi ñu gën a am crédibilité grâce ak Youssou Ndour te loolu du tey dama bëgg ñu delluwaat 2017 balaa ñuy àggali euh, jotaay bi Aba di ma indil beneen invité Amina Poté aussi elle va nous rejoindre euh, tout à l'heure moom itam pour ñu àggali soirée spéciale bi ñu leen di proposer sur les Champs-Élysées bu ñu delluwaatee 2017 au lieu ñuy demaat ci studio bi dama leen di delloo ci seenu Bercy keroog. Euh, Youssou euh, euh, la mu fa def moo taxoon ñi fa jóge woon ñëpp ci at boobu dañu ne woon Bercy dootul dàqati mille Bercy 2017 mais man gëwuma loolu de li ma dégg gis ko la waaj a waxoon ca Dragon ba li may dégg di ko gis Youssou Ndour ak Super Étoile di ko préparé man loolu xaw na maa jaaxal en tout cas duma ci sori parce que dañ ma ne tëjal sa gémmiñ ñoom buñ dee répété sax dañuy làqatu waaye sànq dama porox ndollu rek dem xool répétition yi et y aura beaucoup de surprises ce samedi fii ci euh, euh, France Bercy 2022 donc mu yóbbu leen Bercy 2017 et puis juste après on se retrouve hari jemaah Tolong sama hari jemaah Sabar Okay, kita ni jaaraama ni niira te doye palanko ni dundu def na leeni ilma ci dundu yewoon masina di xam ñu lu dul di jaaxaan Cheikh Oumar jël na leen di leen ci diine ñu jóge fa bàyyi sangara jigéen ñi fooyam tool saxoo du alxuraan kii ma yaa ngi noonu nanga def nanga def gàmm dégg na dangay xaalis ba fu ma seen tàmbaliwul xam naa ni yow moomu loo ko jàng ko xam nga nga foog ko bal deuxième jéem. yow xaalis mënul téem a moom la kër gu riis mënul téem a moom la nan nga def nan nga def gàmm dégg na da ngay xaalis. bu foo ma seen tàmbali wuri xam moom laa ko daan ko àbb mbaa nga for ko baal loo Moskowa. Okej, okay, witam. ñu leen di won 2017 euh, la woon maa ngi annoncé woon euh, Bercy 2017 mais sotti ci ak def ci la parce que ba tey dañu delluwaatoon ci studio bi pour permettre leen ngeen dund ambiance bi Youssou Ndour defoon enregistrement euh, loole nga xamante ni defoon na ko ci studio bi en 2017. Euh, allez on va continuer cette soirée spéciale sur les champs en attendant bisu grand bal bi samedi 18 ci fi nga xamante ni moo di Accor Hôtel Arena bu ngeen bëggee fekkee mbir bi. Euh, te du leen fekk France mën ngeen toog seen kër mel ni comme si yéen a ngi biir Bercy ci kaw ngeen téléchargé application bii di Wido Wido bu ngeen bëggee jënd pass pay view bi euh, da ngeen di dem ci 3w point wido point TV bu ngeen ko jëndee nag à mille à partir de ce moment là di ngeen mën a seetaan soirée bi début ba fin donc encore ñu ngi gërëm euh, Orange qui nous accompagne euh, ci li nga xamante ni moo di euh, Grand Bal Bercy 2022 fàttaliwaat leen itam ni ñu ngi ànd ak yeneen i partenaires yoo xamante ni gis ngeen seen taxawaay pour sénégalais yi nekk Sénégal waaye gis ngeen seen taxawaay pour sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi j'attends Abba pour les autres invités bu ko defee ñu enchaîner ci dernière partie euh, journal Grand Bal bi ñu leen di proposer en soirée spéciale ci euh, télévision Futur Média minuit 28 mooy doog jot euh, fii ci Paris deux heures de moins à Dakar ñu leen di gunge ngeen di dund ambiance su Bercy 2022 bala vendredi incha allah ñu ngi nuyu nag Mapenda Seck tey ci suba moo nekkoon invité midi plus xam ngeen ni fan yëpp midi plus Richmond Gis ak seetu Sénégal ñu ngi koy amal en direct fii ci Paris Mapenda Seck itam mu ngi woote retrouvailles incha allah vendredi bi nga xamante ni mooy Bouquet Bouquet nag mu ngi nekk côté Saint-Denis ñu fa tase euh, vendredi ci guddi def échauffement en attendant le lendemain di jot ñuy fas yéene ànd ndok Youssou Ndour ak euh, Super Étoile alors Abba ban invité euh, la may indiwaatal maa ngi xaar ba tey bu ko defee bu ñëwee léegi nii ñu waxtaan ak ki muy indi. en attendant ñuy tëj soirée mais Baye invité bi ma a waaw xam naa ni euh, moom mooy tëj ambiance bi. waaw wala mu tëj journal bi. Uh-huh. mais Baye balaa invité bi di ñëw dafa am loo xam ne dafa xew euh, fi nga xam ni foofu la ñu jugee ñëw fii. Uh-huh. Youssou dafa def ñett soirée. Uh-huh. def place du souvenir. def arena. def grand théâtre ñoom ñu ne. ñoo mënee 3-0. pour le moment waa Sénégal. donc samedi remontada. ba vendredi ñu ngi doon jubilé. waaw ba vendredi. ñu defee fi nga xam mooy grand théâtre ñu ngi doon jubilé di yuuxu. may leen ndax li ngeen di yuuxu du lu ngeen anticiper. lu uh-huh. ngeen xaar ba ñee pare ndeke waa pari dañoo mer loolu. ok li Sénégal donc waa pari bu bu waa pari mere. c'est à cause de toi. <laughs> déggoo ma de. mbaay bàyyi di ma jaxase. ndax yaa ruube diggante waa Paris waa Dakar. dama leen a laaj yaa ruube dama leen laaj ñu ne fii moo gën a neex fële. Uh-huh. ma ñëw waa Paris yëpp di ma woo naan ma uh-huh. Aba euh, waa Sénégal wala waa. grand théâtre ak waa Dakar jàllal defal lu la neex <laughs> dinañu xam ni euh, fii moo gën a neex fële tubaab dina la mës a porter plainte <laughs> loolu yëpp nga mës a taxaw ji def direct rek police wàcc nga xam ni di jàll di ñuy xool ma ne ko jàllal di yow ex nga ba fii bàyyi moo tax ma indi la ku immature <laughs> uh-huh. ndax ci yi dañ ciy soxla ñu immature ñu mm-hmm. teg lu metti mm-hmm. mais soo de Cinco Prestige mais kenn du moom ah euh, boole nañu kenn du moom Euh, ak euh, kii ñu indi suñu yëf. kenn du moom ay surprise am na ci mais xam nga ah, gis nga nag ñi dër. Ah. ñoo gën a rattaxle ah. ndax li muy bëgg a expliquer nii <laughs> yëg naa ko ne pat mais fi mu ne ila làmminam mooy xasan bu ko expliquer wul bu leen ko expliquer wul yéen téléspectateur ak internaute du am jàmm mais may ñaan Pape Sila mi yore son bi Pape Samba Thiam bu naree expliquer sooda ci ci ko prestige rek couper le micro mais Baye tey ci suba lu tax ma fekk la ci naaj bi waaw teggi la ci naaj bi indi la fu am ker. da ngaa baax naa nit ñi di ko euh, enregistré di ma ko envoyé. da ngaa baax rek <laughs> da ngaa baax rek da <laughs> baax rek. te amoo jë man lu baax jiguma <laughs> léegi nag euh, dama lay indi invité boo xam ni. Eh? Euh, mën nga ànd ak moom sax ngeen tëj plateau bi. bàyyi eh? ki immature la. Mm-hmm. ñëpp xam ko ci TikTok. Ah. mu ci def lu am solo. Uh-huh. indi ay slogan yu bees. Uh-huh. mais li ci gën a garaaw bàyyi ci moom mooy. waykat la en plus. en plus ba pare dafa war a bokk ñi def première partie. en plus. ba pare bàyyi dafa mën a sañse en plus préparé ñu man ak yow ay sañse en plus booy kaay Ousmane <laughs> ma bàyyi la nga waxtaan il m'énerve xam nga moom j'en ai lay wax il m'énerve lui j'en ai marre j'en ai marre de toi j'en ai marre ci loolu Ousmane je suis très content de te retrouver euh, man je fais partie de ces milliers et des milliers de personnes yu lay suivre sur TikTok au départ xam nga algorithme TikTok moom kenn mënu koo kenn mënu koo gérer ay ah, def ni di fël saa yi ma fëlee rek gis koo xam ne daa mel ni man lay waxal j'en ai marre ci lii j'en ai marre ci lii et c'est devenu un phénomène enfin c'est devenu un phénomène on est très content de te retrouver ici ba moi jot mhm. TFM mhm. ça fait un plaisir mhm. ah, yow parce que man tam dama lay suivre a tout moment uh-huh. donc euh, su may gis tam ngay jaaraat samay say samay euh, Jeanne Marie yow Viviane ça me ma nee ba ñii di xool sama yëf rek donc man amatuma euh, droit di def erreur. parce que man dama dem ba léegi Viviane boo ko woowee téléphone na ko Viviane na nga def sax mu ne la j'en ai marre ci yow. j'en ai marre ci lii. chaque jour dama koy gis sama xol bi day leen comprendre. que. Uh-huh. ak Alxuraan Karim. merci bien nax na nax nañ ko mu ngi nii parce que Youssou Mbaye Sir est-ce que ñu la koy téye da nga koy téye j'en ai marre da nga ragal lu xonk lu xonk day dem sama yaram mooy loolu gis nga Pape Cheikh tey la yaram yëpp yëpp naka daw tey la yaram yëpp di daw Youssou Mbaye Sène nit ñi ko namoon Youssou Mbaye Sène do wali mbergan nax na xar Bercy mu ngi ne ko jàmm ko kuy ñëw na nga watu watu leen ba affaire mais lu tax nit ñi war a watu. parce que dina wéy ba si kaaw di ruus. dañ ko namoon dañ ko namoon Youssou Bari si man dama ko bëgg suma xol te booy xool am na benn clip ak Cheikh Marie maa ko fecc. yaa fecc clip man xàmmeewu ma la ci. te du ma fecc kat Pape Cheikh dama ñëw ci euh, euh, jour ko wéru la tombeel uh-huh. ñu laaj fecc kat man leen fecc kat laa. Uh-huh. jour boobu ma su ma suufu tànk bi on ah, xaax. <laughs> ndax fecc bu métti. ma jaaxee sama yaay ne man lu tax ngay fa ma ne ko Youssou Ndour lu ma def jar. jar te yow da ngaa da ngaa lu xaax. lu xaax suufu xaaxam ma. <laughs> daxawul nit Youssou Marie Sène Youssou Marie Sène guddeel fenn ba sey métti yu baax yan la yàlla jàppale yan la yàlla aax yan la yàlla yéex ci barke Seydina man maa la bëggal suma bopp. defal lu la neex yàllaa la fal yàllaa la teg suñu kanam. Ah. donc dawalal véhiculé barke alxuraan yi defal la neex. beeg <laughs> si na xaax. kuusu leen. ah woddu leen ngoone ngoone kii moom il faut ñu yóbbu ko Sodav. mu fayeeku droit d'auteur j'en ai marre ci lii il faut que ñu yóbbu ko SODAV parce que defe naa jot na waa SODAV di ah. protéger li nga xamante ni mooy xew ci réseaux sociaux yi parce que je sais que ñu ngi superviser tout ce qui se passe côté télévision tout ce qui se passe côté radio mais pour le moment avec les réseaux sociaux euh, euh, en tout cas xaw ma France mais Sénégal moom xam naa ni waa SODAV euh, en termes de droit d'auteur jot na nag ñu ñu liggéey ci bu baax quoi parce que c'est de l'inspiration c'est de l'art et tu fais plaisir à tellement de man loolu daf ma jaaxal man dama ragal cat. man ku fe man amul su ma ñuy fanaan su ma xarit la. yaa ca tey fanaan. cat dafa ñool gudd sew su ma xarit la. te amul xa amul xaax am na ñaari xaaxaam <laughs> dafa soxor cet cet jëru soxor cet bi muy tuddee cet man moom xaw ma ne la mii dama koy mot à tout euh, mais man xaw ma ne woon sa rasta yi copp copp rasta la man damaa ragal tuuti rasta. dama ko dafa wax dafa gudd dafa kii nekk. <laughs> donc ko chignon mais bi chignon la chignon donc ko chignon. donc samedi euh, di nga ñëw ci euh, ci ci grand bal bi samedi di nga ñëw ci grand bal bi mais ni mu sol dafa gàtt. maa ngi dafa affaire dafa xale bi li mu mel li mu sol dafa gàtt. France France wóorul France wéeru ko France baaxul judo baa di ba su ma ko waxee ginnaaw baaxul te leen di jox rendez-vous incha allah ah jour Bercy képp ku tardé première partie j'en ai marre tardé nga lu rëy parce que demande lu extraordinaire juste pour waa Sénégal juste pour Youssou Marie Sène pour la première fois. donc voilà mooy loolu bàyyi leen ci xel pas fier bon comme ça ne maax ci yow mhm. merci ma bàyyi nga dem est-ce baax mais maa gën a kontaan yàlla defal jàmm waay amin waay yàlla yàlla dolli sutura TFM yal na gën di xonk di dem di rouge amin nit ñi di ñëw mais lan moo tax TFM am bayre bukki yàlla ko def xam nga bukki dafa bukki bukki gàllañ bu baax la lanu bukki xuuxu bukki bu ñu xam ko ci suuf ñu ñëlee topp moom maa ngi lay gërëm merci kontaan na à bientôt à samedi j'en ai marre ci yow yóbbaale ko waaw <laughs> yóbbaale ko mën nga koo denc sax fii ci France booy TikTok rek di dugal micro micro TFM mais da nga ragal lu xonk mais amul xar-xar <laughs> Ousmane il a beaucoup de talent et on l'aime beaucoup on bonjour princesse gis nga boo dawee làqatu damay ñëw fekk la foofu de alors viens près de moi voilà di nuyu wa Abis Garden depuis Dakar xam naa ni Abis Garden bu doon Paris la rek day dressé buffet pour grand bal bi fii ci Bercy bi te wóor na ma ni wóor na ma ni ci bëgg bi mu bëgg sénégalais yi est-ce que ëndaalewul ay barquette pour ñi nga xamante ni ñooy fekkee grand bal bi donc grand bal 2022 Abis Garden et partenaire comme tout le temps waaye nag. lan la Abyss Garden réservel invité yi samedi je sais en tout cas yéen ñi nekk Sénégal faites-vous plaisir samedi par exemple day mel ni euh, Aba li ñuy def euh, ci Coupe d'Afrique bi ci football bi nu mu tudd. fan zone fan zone voilà. Fanzone. merci fan léegi samedi ci grand bal bi Abyss Garden bu ngeen demee corniche ouest jàkkaarloo ak géej gi dafay aménager Abyss Garden mu mel comme fan zone. voilà fan zone Bercy mais pour ngeen seetaan grand bal bi man ngeen dem fi nga xamante ni mooy Abyss Garden c'est vrai mais pour regarder ça utiliser leen seen ay téléphone portable ngeen télécharger application Wido bu ngeen ko télécharger ba pare ngeen dem ci plateforme bi www.wido.tv ngeen jënd pay-per-view bi à 5000 francs maanaam 5000 francs mu mel ni jënd ngeen billet d'avion ñëw ngeen France fay ngeen seen hôtel dem ngeen euh, ci salle bi seetaan Youssou Ndour ak Super Étoile il ne reste que deux jours c'est le moment ou jamais pour ngeen télécharger ba noppi dugg euh, ci site bi www.wido.tv ah. kii kan la ni ah, ay star la kii wax ma kii kan la mais kii la wala ma kii kan la mais kii kan la elle est trop belle en plus mais kii la mais elle est trop belle yow la kan man la man la euh, brown wala soso bronx wala soso ban la yow. soso brown. <laughs> mais soso bi boo ko <laughs> xoolee rek boo ko xoolee rek xam ni ci kër Youssou la jógee. boo ko xoolee rek xam ni. abaabul ah, ma tooñ de. ah, ah. <laughs> waxuma la waxuma la dara la dara mais Baye euh, ak soso. Hmm. dañuy ànd parce que il faut nga tëj émission bi Baye. Hmm. ñaari question mais na gaaw Baye mais poser ko ñaari question mais soso maa ngi lay nuyu. danga nga bëgg da bëgg ma tolloo ak yow ma wàcc ah. Voilà, je vais me mettre comme ça. Non, non, non, kañ nga ñëw kañ nga ñëw Paris. man tey ci suba laa ñëw Paris. mais lan moo la indi Paris ba nga ñëw fii 7h55. xanaa Bercy ak Youssou Ndour. oh là là c'est beau oh, léegi lan moo tax nga ñëw pour seetaan Youssou Ndour samedi. ah pour bëggee ko rek. est-ce que am xam nga ay woyu Youssou Ndour. tuuti rek. xamuloo woyam yëpp. xam naa tuuti yow dis-moi sax kan mooy sa chanteur préféré ban kat nga gën a bëgg. Youssou Ndour. oh là là après kan. jeex na. oh. maintenant qu'est-ce que quest que tu as envie de dire lan nga bëgg a wax téléspectateurs yu ñuy seetaan pour ñu bëgg a fekk fekkee Bercy bi comme yow. yéen ñëpp maa ngi leen di invité Bercy samedi le 18 juin. bravo mais mais mais il faut ñu am ko ci kaw scène bi. soso il faut ñu am ko ci kaw scène bi c'est ça mais tu penses que ah? wala ay ñëw tàggatoo la sañ sa lii. Uh-huh. donc kii bëgg naa ko gis ci kaw. mais kon il faut ñu commandel ko benn grand boubou. ci Soda Cinco Prestige ah. ah kon yaa ngi wax. ah bu ko sol grand boubou. Euh, am indi na. Oh! <laughs> waaye kii indi naa ki kii pare na kii pare na bu yàgg. waaw léegi <laughs> tu sais ce qu'on va faire. Ah. man ak yow dañuy tàggoo. waaw ma tëj journal bi. waaw léegi nag tey spécialement Soso moom moo may tëjal. journal bi ah léegi euh, mu euh, tegal ma publicité enfin bande annonce Bercy d'accord léegi yow yaay annoncé lii jàll léegi nii bande annonce bi comme ça nga jàkkaarloo ak téléspectateurs yi ak internautes yi jeex na fi nga wax leen ñu seetaan ko comme ça loolu daf leen di permettre ñoom ñëpp ñu mën a ñëw teel a ñëw ci Bercy bi tu es prête ma jox la sama micro nga xool caméra bi wax loolu et en plus Euh, bon, après, je vous raconte l'histoire. <laughs> Donc, je donne le micro. Allez, man maa lay décompter damay wax 5 4 3 mu ba mu jeex nga wax seetaan leen bande annonce Bercy. d'accord alors je je compte jusqu'à 5. 1 2 bàyyi ni ngay compter bàyyi ni ngay compter il faut nga recommencer waat il faut nga recommencer waat. ma def nan 5 ah, ah, wala à partir de 5 wala 1. 5 wàcc ma 5 wàcc ok quatre non en anglais en anglais je pense que waaw moom anglais dégg naa anglais ok 5 4 3 two, one. seetaan leen bande annonce Bercy. ayca. <laughs> l'Accor Arena de Paris. Ex-Bercy. Nyoko Yakam Tuan, le grand bal, Soleil Paris la France, le grand bal, le rendez-vous de tous les mélomanes du monde entier de la diaspora.